présidente Awagay Gueye rek fofu lay tambalé ndax dañu gis demb ñun ñëpp nous nañu demb ci benn conférence de presse bu am benn cadavre politique muy suñu collègue à l'Assemblée nationale nekk ancien ministre de la femme muy a été di attaquer son excellence le président Macky Sall di wax né défarul jigen dara ma bëgg ko rappeler que ko président de la république motax tay Sénégal ñuy wax parité ndax mom motax ñu l'application effective de la parité may wax aussi Né, c'est avec le président Macky Sall c'est la ñu benen jigen muy deuxième femme buñu ñu nommé premier ministre waane mu am lu bees ren parti au pouvoir jël jigen def ko tête de liste mu ngi doga am avec le président Macky Sall mu defaat lenen lu reuy mu jël ay institutions lu melni au haut conseil des collectivités territoriales mu jox ko la présidente Aminata Mbengue Ndiaye mu jël pour la première fois dans toute l'histoire du Sénégal première femme directrice générale de la police nationale qui président Macky Sall lañ ko mais qui président Macky Sall aussi la falalé ministre de xamné police nek qui suñu présidente nationale di référence di modèle muy ndey Saly Diop Dieng Lol bu ngeen ma wax ko monsieur le président de la république dafa am ay linguère républicaine dafa am ay a yoo xam ne ci wetam la ñu politique mu jàngal leen éthique jàngal leen morale ndax moom président de la république moo ñu nañu il demeure convaincu que l'engagement peut s'accommoder avec l'éthique la morale et la loyauté loolu moo que jigéen ñi ngeen fi gis

la daw bir PDS ku nek mu ngi ma carte ma caution Yalla lu en 2012 son excellence le président de la république la jigen ñi fal may wat Aïda ne ko du référence du modèle ci une jeune fille A plus forte raison les femmes te comme niñ ko xamee fi mu jaar ni ko madame la ministre waxee ku fa jaar takk ban te ñun bëgguñoo takk ci ban moo tax ñun gëm nañu ne ñun gëm nañu ñun ne ay femmes républicaines lañ ay femmes de valeur lañ ay femmes yu am éthique ak morale lañ parce que ki ñu àndal loolu la jàngal bu ñuy wax tey transhumance ci Sénégal tey mën nañ wax ne ay Mbodj mën nañ ko citer en exemple comme femme bi nga xamné mo moo li mu transhumé ci Sénégal parce que nguur bu daanu mu jog and ak mom li tax andul ak ñun nak li tax andul ak ñun moy dafa feug ba faalé wuñu ko ubbi luñ ko bunti motax mais ni kon mu ngi tok fi ak ñun ñu bëgg ko xamal né ko ñu bëgg ko xamal né ko président de la république du moromam benen bi moy bu fekké né dafa def politique jaar fi mu jaar bëgg a député tax mu fëgg buntu ubbi luñ ko mu dem ànd ak ay sëtam dem fa di lobbying def fa di dem fa di manipuler bañu jox ko deuxième place mais moom du bokk li ma waxoon démb laay waxaat tey Aïda Mbodj nañ ko fàttaliwaat ne ko du bokk ci élection législative yi ñu jëm te pour li ci des nag nga xam ne xeex la madame le ministre bu dee wàllu financement yi ñu wax madame le ministre président de la république mu ngi financé jigéen ñi à travers votre ministère